jongante palub njiitum réew bi amoon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeruk mars atub 2024 fii ci Sénégal jot na dalloo lu tollook ñeenti million ak ñeent fukk juróomi junni yu toftal ñetti téeméer ak fukk ci ay votant loolee di wone participation bu mucc ayib boo xamante ne bi xel mënees na ko nangu ci résultat provisoire yi nga xamante ne bi njëkk nañu ko jot jot nañ cee nemmeeku candidat bi di Bassirou Diomaye fay mi jël raw gàddu gi ndaxte am na ci téeméer boo jël juróom fukk ak ñeent yu toftal fukk ak juróom ci ay baat di wone ni askan wu bëree bëri jox nañu ko seen kàddu Amadou Ba jël ñaareelu place bi am lu toll ci téeméer boo jël fanweer ak juróom-benn yu toftal juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci ay xob. Alioune Mamadou Dia topp ci ginnaawam di ñetteel bi am lu toll ci ñaar yu toftal fanweer ak juróom-ñaar ci téeméer boo jël ci xob yi loolee di firndeel ay xalaat yu wute ci électeurs yi fii ci Sénégal. yeneen candidat yi seeni pourcentage daanaka taxaw koo demee noonu ku ci mel ni Khalifa Ababacar Sall mi nga xamante ne bi ku am tur la ci politique bu Sénégal li mu am doon lu néew lool ndaxte benn bu toftal juróom fukk ak juróom-ñeent ci téeméer boo jël ci xob yi muy luy indi ay jiixi jaaxa ci popularité am ci biir réew mi yeneen candidat yi nga xamante ne bi seen siiw taxu koo demee noonu bokk nañu ci bile scrutin donte gis nañu itam ne seeni résultat daanaka du dara tracé bu Sénégal rawatina ci bile jongante yi les résultats nag dafay fësal ne coppite war na mën a am ak itam xalaat ci wàllum politique bu yees ci diwaanu Sénégal wala itam ndax dañu fiy jëlee mag ñi nga xamante ne bi bay nañu seen waar ci wàllum politique ba noppi bu ko defee ñu indi ndaw ñi xool itam ñoom naka la ñu fas yéenee doxalee réewum Sénégal